waa mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu comme ni ñu koy faral di waxee saa su rek euh, ñu wax leen leen boobu léegi ñu ngi ci màggal gi fii ñu nekk nag muy kër soxna Momy Kébé mu ajaratu Mariam Dieng Sala soxna Momy Kébé mu alxaaji Njuga soxna Momy Kébé mu Serigne Saliou Tage Ablaye Tage. soxna Momy Kébé mu Serigne Saliou tey nag màggalu Touba lañ nekk 18 safar bis bi nga xam ne Serigne Touba dafa waxoon ne ku ci feeñ doo nëbb mukk bis bi nag li ko waral mooy sëriñ bi moo ko woote ba pare njëkk koo defal boppam ne nañ ko ci santale yàlla ñu toog a kilifa goo xamante ni si day suñu mag ci lii ñuy def ba noppi di si suñu kilifa di kenn nag ci soxna Momy di kenn it ci kër gi ba noppi nag di kenn ku bokk ci wàllu commission bi nga xam ne ñoo yor li nga xam ni mooy màggal gi moom la ñuy dalal di waxtaan ak moom ci xew-xew bi ak ci li nga xam ne moom moo ñu tax a ñëw fii muy ko soxna Momy Kébé sëriñ jii li ñu ngi lay siyaar aouzu billahi bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah alhamdu wa shukru maan lillahi ala nabi wala di abdillah saddi lisaani nawil janaani safi amaani wazid baraay waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu sëñ Yasane ñi ngi am mbégte bokk ak yow jataay ni nga ko waxee ñu yàgg lool diggante bi yàgg lool euh, liggéey bi itam bokk ci xidma bi ndax sëriñ bi euh, liggéeyal ko dafa bari ay fànn liggéey bi bokk ci kon ñu ngi leen ci sant bu baax yéen ak waa Allo Dakar yëpp di nuyu di ziar itam sëñ bu naa ma nga xam ni yàgg nañu moom it di ànd ci liggéey bi lu mel na tool sëñ sëriñ Saliou yee ci ko saa yu amee ñoo koy ànd ba bërki démb rek ñi ngi gis seen taxawaay ci Masaalikul naan nuyoo beeg ziar bi nag di tàmbali ñaanal sëñ Muntaxa moom sëñ Tuubaa Cheikh Mouhamed Bachir sunu boroom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér ak mucc ak mboolem njaboot Cheikhul Xadim gi ñaanal te ziar jëwliñam yëpp rawatina Cheikh Mouhamed Bachir moom Cheikh Abdoul mi ñu teg euh, màggal gi ci loxoom mu yor ko yorin wu rafet am mbégte itam fii nga ñu fekk ndax fii dafa bokk ci kër sëñ ndax euh, Alaaji Njuga Kebe mi nga xam ni mooy sababu bërëb bi moom bëggam weesul woon sëñ Tuubaa jëfam it ba tey waa Tuubaa ñu ngi koy jëriñoo fi mu toll nii boo julli woon ci jumaa ji ba génn bunt bi fee féetoog sow fi ngay sànq da nga naan télé Alaaji Ndiouga Kébé moo lay indi ba jënatul maxwaa tey jii télé boobu moo dem ba ci Ila Touba bi kon nga xam ni bokk na ci ay tawféexam suñu suñu sëñ Cheikh Abdoul Khadir li sama bunt ci sëñ Touba da daan wax naan saa yu tegee tànkam ci jumaa Touba rek xelam dem ci Alaaji Babacar Kébé Ndiouga loolu jëf la sëñ Assane ma delloo la kàddu gi. ah jërëjëf sëriñ Jili Abdoul Khadir <coughs> ñang wax ji rafet na kàddu yi rafet na. waaye sëriñ Jili question bi nga xam ni moom lañ ci toftal mooy fii ñu nekk bokk na ci wax nañ ni yow yaa yor kàddu gi nga xam ni muy kàddu soxna muy muy soxna si mu dajale fi mbooloo mi yëpp mbooloo mi kër gi fees dell nga gis dem nañ fi nga xam ni fa la gàtt yi nekk dugg nañ ci wàññi dugg nañ ci nit ñi waaye ñëpp rek jàpp nañ jàpp nañu benn benn wax rek la ñuy wax ci moom te boroom këram léegi seedal ko ci moom mooy nit ku baax la nit ku bëgg Serigne Touba la nit la koo xamante ni si lépp lu muy defit li muy yëngu ci wàllu social nee na Serigne Touba rek la ko seedal te nit ku bëgg Serigne Saliou la. léegi nag loolu ana lan nga ci dolli yow mi yor nga xam ne yaa yor kàddoom sa diggante ak moom ak li nga xam ni moom lay def ci ci doomu aadama yi rawatina nag ci bisub Serigne tubaab bi. sëñ Assane yow daanaka tënk nga lépp <laughs> li nga wax ci moom mënee su ko weesu mhm. ndax eh, taxawaayam yëpp moom mooy jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi te loolu mooy taxawaay bi nga xam ni moom la sëriñ bi jàngale njabootam naka jekk daan ci nekk mu am ci tawféex nag ndax ci ak rawam bi muy dugg ci kër sëñ saaliw nekk ci wanagu sëñ Moustapha moom Cheikh Saliou booba amagul fukki ak juróom kon mën nga ni ci la gindiku sëriñ bi ñor ko soxna Mati Jaxate mi nga xam ni moom la dippee bâtiment bii ñu nekk di waajuru sëñ Moussa mu sëñ saaliwu da daan sol ay kawas di nekk ci waañam takk ndigam ci dul sax bés yu mel nii bare na yu daan yegg ci sëriñ saaliwu ci boppam moom mii moo ko daan jëlee ci wanagu soxna Mati di ko yor sëriñ bi bare na fu sëriñ musafaa moom sëñ Saliou teg tànkam di fa liggéeyal sëñ Tuubaa moom mii la ci àndal lu mu yàgg tàggatu la lii nga xam ni nag mooy wàllu taxawaay bi loolu danaan ndono loo xam ni waajuram yi ko meññi nu leen rek waaye daf leen doon ñun ñi xam am na ñu ci fekke àla njuga kebe mm-hmm. waaye booba taxul ñu mën koo xam ndax jaxasoo nag moom ndax booba li ñu am ci ay at mayuñu woon ñu jaxasoog moom waaye xamoon nañ ci moom taxawaay boo xam ni tap goo xam ni ak bëgg sëñ goo xam ni gis nañ ko ci soxna mi hmm. waaw gis nañ ko ci moom leneen li ci topp mooy ki ko yàlla booleel muy sëñ Ablaye Tage moom sëñ Saliou li wolof di wax naan kii wut fu mu fanaan ak kii wut ku ko te jël bunt bi du leen hmm. moom sëñ Ablaye naka jekk dafa gëm ni lépp lu mu yor sëñ Saliou ko jox soxna siit gëm ni sëñ Saliou da koy liggéeyloo ñoom ñaar ñu daje moo tax seen amul seen lenn loo xam ni rek daan ko xaare lu jëm ci mbirum sëñ Tuubaa te lu jëm ci mbirum sëñ Tuubaa mooy ni ma la ko waxoon léegi rek jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi moo tax doo ko dégg ci guddi gun koy tuddee grand théâtre wala faneen ak faneen ci li nga koy dégg rek màggal Tuubaa màggal Tuubaa moom bu ciy ñëw dangay jàpp ni bu ñu màggalee ba ci ëllëg sa leneen amatul beneen soxla amatul ndax ni mu koy waajale ak li mu koy jaral wax nga ko léegi dugg ngeen ci kër gi gis ngeen li ci nekk sëñ bi dafa ñu ne woon ganaar ba ci gëléem waaye xam nga ni am na yeneen mindaafoon yoo xam ni soxna Momy ak sëñ Ablaye Tagué dugal nañ leen ci màggal gi ndax xam nga karaab yeeg ak yooyu sipax yeeg ñooñu xam nga bokkuñu woon ci lim bi waaye fi mu toll nii ku ñëw ci këram gi te te ñuy ay euh, fruits de mer yoo xam ni euh, ku nekk xam nga prix bi ni muy toll ay centaine de kilos la ci indi kon ñoo ñu taabal na leen ci biir màggal gi ndax màggal feet la sëñ Moussa mi nga xam ni moom la nekkoon ci wanagam sëñ Moussa Saliou bu yàggu rek ñu ngi dugalaat vidéo yi muy xam le ni bésu sant la te feet la bésu cant nag fekk nuruwul ndomu ndamu cant gi des na bésu feet itam fekk berne yi nuloo ku yàq berne ya des na ndax as góor la sëñ Tuubaa Cheikh Abdoulaye daan wax naan boo koy teral na nga tàmbalee ca ndoxum raxasuma boo ko tegalee ndoxum raxasu moo xam ne ñaari litre lay doon bu ko fekkoon ci ay itte ba loxo yi tilim bu raxasoo ba noppi rek day am kersa ndax danaan ñii de buñ jël seen ndoxum raxasu mi daan ni sama loxo yi tilimoon na moo tax nee na koy tegal paan lu loxo yi taq taq taq buñ jël seen ndox mi duñ ko gis bu ko bu ko bu bu ko kilo di su suur itam danga koy tegal ñaar fukki kilo dana ci jëfandiku te mu mel ne bool bi nga ko indiloon kenn laalu ko doxin woowu nag moom la nàmp ci kër sëñ Touba nàmp ki ci kër sëñ Saliou moom lay doxee moo tax fi toll boo duggee ci kër gi danga naan xanaa nit ñi añagunu ndax li fi nekk ci ñeneen mbooloo mu ci mën a añe te màggalu daaw lu ëpp juróom-ñaar téeméeri nit ñëw nañ fi ren xam naa ni dana ko ëpp juróom-ñaar téeméer ñi dal laa la wax. waxuma ñii ñëw ak di dem ren jii ëpp na ko ndax dal yi yokk na jombul dem ngeen ba fee ca wetu jàkka ja yooyu yëpp gis ngeen yooyu ay dal yu yees la yu bokk la tàntu VIP yi nga xam ne dañ koy climatiser. am na liggéey yu muy def sax yoo xam ñu bari xamuñu ko. jàkka jee ngeen di seen sa ñasan. jombul yéen di sa caméraman jël na ko. jàkka ji Alaaji Babacar Kebe moo ko tabaxoon. waaye moom moo ko ubbi ci ndigalu sëñ Saliou. yamul ci ubbi jàkka ji daf ci def daara. daara joo xam ne ay téeméeri téeméeri xale yi dëkk ci wet gi yëpp wutal na leen sëñ daara yu leen di jàngal mu leen di fay te xale yi kenn du fay sëñ daara yi moo leen gàddu di leen fay imaam bi fiy jiite moo koy fay wu daf ko wutal salaire noddukat bi da ko wutal salaire ñi yor jàkka daf leen wutal salaire loolu rek doyoon na ci liggéeyal sëñ Tuubaa koñ bii ñu ci bëree bare bu ñu noddee fajar nii buntu baa nga ne ubbeeku fii jaay ak jàkka ji la ñuy jullee see doyoon na wutaat jëmm joo xam ni geneen jëmm joo xam ni surtout sëñ Massamba Diop Sam bés bu nekk kaamilu alxuraan bi dañ koy wàcc fii ci kër gi ñooñu mu wutal leen salaire bésu sëñ yi amul benn bés bu ci am boo xam ni ay millions ndax xam naa li ma yox ndax lu ci bari ñoo koy ànd la ñuy takkee Dakar ñëw wër njaboot sëñ Tuubaa gi bëggam sëñ nag ak bëggam dëkk bi bâtiment bii doy na ci Assane xam nga bâtiment bii tey jii ku ko tabaxoon Dakar weer wu nekk nga am ci ay millions. waaw loolu ci kaw. nga def ko fii. di ci dalal ganu sëñ Tuubaa yi ci màggal ji moom boobaak léegi ñaari fan yi kenn gis ko fii ci bâtiment bi kon defalu ko boppam ganu sëñtubaay Tuubaa yi la ko defal ak bëgg sëñ Tuubaa bëgg goo xam ni ku ñëw boo jóge ni New York tey jii ñu takk say bët ubbil la fii dugal la fii dangay jàpp ni tukki woo génnoo États-Unis France naka noonu ak faneen ko noonu kon moom daal nañ ko ñaanal suñu borom yokk ko te musal ko moog sëñ Ablaye yéen ñi itam yàlla barkeel seen média bi muy Allo Dakar mbooleem ñu ñëwoon màggal si itam li sëñ Touba dële ku ñëw ci màggal gi yàlla defal la ko ndax wax na ni képp koo xam ni fonkale nga ko bés bii jàppale nga ko ci bés bii boo delloo gis koo xam ni jàpp ci woon wala fonk ko woon sa kooku moom saa su xëyee day gis nga koy gën a jëm kanam rek kon ñun ñëpp yàlla su sunu aajo fajo wasalaamaaleykum. ah jërëjëf sëriñ ji li lii de koo ko dégg xam ni liggéeyal sëñ Touba rek a wóor dama ni kër sëriñ Touba nag jàmbaramu ci ku sëñ Touba dimbali rek moo fi am. waaye ku dégg lii nga wax ni ci soxna Momy Kébé wax ko ci borom këram gi muy sëriñ sëriñ Abdoulaye Kébé moom sëriñ Saliou da nga xam ni ñii kat li ñuy def maanaam ñu ngi koy teg ci ndigalub sëriñ Touba sëriñ Saliou waaye damay wax ni nag ñëw ñëw màggal dégg màggal gi da ko ëpp. Mm-hmm. da ko ëpp solo. Mm-hmm. ki nga xamante ni si la sëñ Tuubaa waxoon ni la ko tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem lu ci waaye man defal ma ko ci. Mm-hmm. te leen lu ci nekk rek boole na ko ci boole na ko ci. kon dégg na màggal gi. bu demee ba duggaat ci géej gi. wut ay fruits de mer te leen lu ci nekk gën a seer la sëriñ ba waxoon. kon dégg na màggal gi. boo fi ñëwee fekk fi xasaayit fekk ñuy jàng alquran wàcce fii kaamil. dal yi bari muy muy teral doomu aadama yi kon dégg na màggale kon soxna mu mi daal dégg na màggalu Seexul Xadim gi waaye nag war naa mën a nekk nag ndax ku ñu denk dénk ab Ablaye Tage moom sëriñ Saaliw ajaratu Mariam Njeng Saalo di sa wayjur alxaaji Njuga Babacar di sa wayjur tey jii boo xoolee kenn desul ñoom Pape Diagne nga ne jóge parcelle ñoom laay nga ne jóge tasal Cheikh Fall ñëpp kon loolu daal ñu ngi leen di jox rendez-vous beneen yoon dinañ xam ne daal màggalu Touba Allo Dakar nii la ko defee fii ci kër Soxna Momu kebe di ñaan nag lépp lu ñu def am ci ngërëmal Serigne Touba ci barke Serigne Saliou Mbacké.